salaamaaleykum téléspectateur euh, Grand Yoff TV euh, tey nag euh, bu ngeen gisee fi nga xamante ni fi lañ nekk kenn du leen ko wax muy place BCEAO ñiw certifié ki nga xamante ni nag mooy Serigne Dial le grand danseur ak équipe am Africa Tilibo kenn dootu ko présenté sunu waaju baax ji ma jox ko kàddu gi mu nuyu Serigne Dial salaamaaleykum. Assalamualaikum, Momar mang lay nuyu di le chat mhm. di nuyu wa Grand TV yep ah di len wax ak si ak jam ah di nuyu assistance bi. Mhm. ah rawatina sama family maa ngi nuyu ñep di nuyu Sénégal mhm. ak aduna mbekté ak contentement lañu ñu tassé wat ak yow ndaxte say programme yàgg nañ ko couvrir bi nga xamanté moy Sénégal tour bi nga xamanté ni euh, Dakar tour amalon nañ ko si atum daw ren ji tamit. ginaaw bi nga jógee Suède yaa ngi fii Sénégal di ko waajal tey lan ngay wax fans yi ci stage bi nga xamante ni moom ngeen dëgg dëgmal muy stage ndakaar Sénégal Tour. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. def nañ ko daaw. yàlla nañ ko fekkee déwén. waaw rafet ci bu baax a baax a baax ndax daaw ñi fi ñëwoon wax dëgg yàlla kontaan nañ. Mhm. yéen seen kanam fekkee ngeen lépp yéen a couvrir. événement yi. Mhm. ren nag dañ ko bëgg teel a waajal ndax dañoo am ay partenaires. Mhm. yu nekk ba Sweden Kiruna. ah ak Sweden nag li ko wër ak àdduna bi fépp la doomu aadama di jógee. di ñëw di fekkee se Dakar Sénégal Tour. ba tax na ren ñu teel a ñëw si décembre bi doon xoolaat place yi defaraat kër gi. teel a dugg ci organisation bi su ko defee gan yi bu ñu ñëwee gën a kontaan. Mhm. waaw mu nekk loo xamante ni yaakaar naa ne yàkkamte nañu ko surtout waa Grand Yoff mhm. ndaxte bu daaw bi moom macha allah nga ànd si ak tamit euh, ginnaaw Africa ginnaaw tamit euh, groupe bi nga xam ne Africa Tilibo. tamit groupe bi nga nga nekkal bu muy euh, No Sense Rythme ñoom tamit yaakaar naa ne dinañ teew mooy sunu mbokk japonais yooyu. incha allah nyom daanu ñëw incha allah sax. ñoo gën a yokk tax ma ñëw nii xoolaat place bi. xoolaat côté bu ñuy liggéey yooyu. waaw maanaam li mu ëmb dafa bari waa Africa Terrible. ak Norwegian Stream daanaka benn la dafa mel ni nga ne Sénégal ne Sweden. waa Africa Terrible ñoo nekk fii teewal liggéey bi. Norwegian Stream moo nekk Sweden di teewal foofu liggéey bi. voilà euh, kon mën nañ jàpp ne. mois du ut moom vraiment doomu Grand Yoff yi war nañ mun a préparer wu. est-ce que yéen a ngi def mobilisation bi campagne bi pour tamit ñu gën ko yëg pour mun a ñëw teewee mbir mi comme daaw. waaw incha allah am na ñu féete wàll boobu. Mhm. ndax liggéey bi yaatu na looloo sax tax ñu teel a ñëw. Mhm. xoolaat bagage yi. Mhm. waaw te yaakaar naa ni waa Grand Yoff daan ci gis seen bopp. Mhm. artiste Grand Yoff daan ci gis seen bopp. Mhm. ak képp kuy doomu sénégalais di nga ci gis sa bopp ndax loolu mooy idée bi. waaw mhm. d'accord donc euh, mu nekk date boo xamante nii euh, mois de août la. date fixe bi jotaguñu ko. te xam naa ne sa mbokk artistes yi les danseurs de Grand Yoff gis nañ daaw ni ko defee. ñu ngi koy préparer vraiment. Grand Yoff nekk dëkk boo xamante ni wàllum art kenn dootu ko fa natable ndaxte am na ay artistes yu mag yu fa nekk. mën naa cité nga xamante mooy Pa Moussa nga xamante da ngeen di ànd tey eh, aar bi si biir Grand Yoff lan nga ci am analyse est ce que am na ñoo xamante ne ñu ngi def ni yow wala mu ngi reculer wala lan lañ si mën a jooyantiwaat waaw aar Grand ku xam Grand xam ni aar yàgg na ak Grand Yoff mm-hmm. ndax maanaam suñuy mag ñun lañ ko fekk ñu koy mm-hmm. def yor ko mm-hmm. yor bu rafet mais maanaam léegi dafa commencé sooxe tuuti maanaam Mhm. bërëbu liggéeyukaay yu ñuy liggéeyee dafa des mhm. fii dama gis ni maanaam ñun bu njëkk ba dañu amoon ay daara yu ñuy rep yu ñuy yu ñuy jàngee fecc yu ñuy répété mhm. fu mel ni ci foyer grave centre Derklé ak yeneen ak yeneen ak mais léegi yooyu yëpp dafa dee ñu koy def bariwul am na nag tuuti waaw mais dafa xaw a dëgg la dafa xaw a des yow pour yow lan moo tax aar bi xaw a des ginnaaw grand yow ndaxte dafa ñàkk ay place yu ngeen nga fa mën a defee maanaam ay place yoo xamante ni tey euh, groupe danse yi war nañ ko fa mën a def wala lan moo lan moo des wala accompagnement bi moo des foofu. waaw accompagnement bi moo des. Mhm. ndax groupe de danse yaa ngi fi tuuti voilà. accompagnement bi moo des ndax groupe de danse yaa ngi fi. Mhm. ak ay boy yu am talent mhm. waaye danoo amul ñu leen jàppale maanaam ñun. ñu ngi def lu ñu mën. ñi ngi dajale. xam nga suñuy propre moyen la ñuy di leen ko jox mhm. amuñu ku ñu jàppale koo xam ne dinañu jàppale ci dara ba ñu fiy jógee di dem Europe mhm. gisuñu kenn à part riche boy bi ñu nekkoon di ci soox ba yàlla dogal ñëpp xam ñu mhm. ñuy dem fu ne di ñëw ñooy jàppale suñu bopp mais au niveau de Grand Yoff xaw man man damaa yaakaar amul ku teewal aar fii

y en a mm-hmm. premier benn xam naa ko Africa Telibo am na ay kayit yu légal. Mm-hmm. mais man de mosuma dégg fu ñu jàppale wala am na mm-hmm. subvention. te pourtant am nañ lépp. am lépp mais lépp suñuy propre moyen waaw. am na ay yeneen groupe yu ma xam te xam naa ne ñooñu am na ay kayit xëy na nag ñu ngi leen di jàppale waaye yëguma ko fenn. voilà donc euh, mu nekk message boo xamante ni euh, Serigne Dia lancé na ko ñi nga xamante ñoom ñooy autorités yi parce que aar bi tamit. Euh, gis naa ñoom tam ñu ngi si bay seen waar parce que il nous annonce euh, benn foyer boo xamante ni c'est pour la pour la culture au niveau de Grand Yoff ah donc loolu tamit bonne nouvelle la parce que bokk na ci mais dëggal ko bi mooy ak accompagnement financier bi je pense que ni moo mun a euh, dimbale ay xale yi dañu ñëw ba tey si sa si sa groupe bi ndaxte gis nañ fecc mi nu mu rafetee mhm. mais chorégraphie yi ay leçons yi ngeen di jàng théorie soo ko pratiquer wala nu ngeen ko defee en tout cas dañu gis ay reprise ay affaire yu grave yoo xamante ni sëriñ da koy def. loolu <laughs> fan la jóge très bien loolu yëpp jàng la rek. Mhm. xam nga jàng ak maîtriser li ngay def. Mhm. ndax maanaam yëf yi mën nga ko doon. Mhm. waaye tamit da koy jàng. maanaam ñun luy ñëw la ci ñun naturel. waaye boobu. tooguñu rek di ko def ni mën nañu. dañ fay jóge dem jàngi maanaam. bari ay maestro ndax nit ku nekk li mu mën xam nga nit daf ni ñu yàlla bindee noonu la ñu utee ku nekk ak li la yàlla may léegi yow xamal sa bopp xam nga am na lu la manqué da ngay jóg nga dem jàngi lool kon yéen dafa am fu ngeen ko demee jàngi bu baax fu bari ci tubaab yi wala au niveau de l'Afrique non fii lañ ko jàngee benn benn maestro ngi nii toog kii bokk na ci ñi ma jàngal ah ku ci mel ni ndaama ñooñu bokk nañ ci ñuy xool ñu naan bokk na ci ñu xool ñun dafa am maanaam Grand Yoff noonu la aar noonu la fi aar meloon. Mhm. dafa dafa amoon dafa amoon par génération. Mhm. dafa amoon Davidson Boy. Mhm. am Rich Boy. am Enfant Magique. am ASC Arafat. te lépp dañoo mooy jamonoy Oscar bi. loolu jamonoy Oscar la woon. même après Oscar. dan daan tase di liggéey ndax bale yàgg na Grand Yoff ñun ci biir Grand Yoff fii la ñu jàngee bale. fii leen jógee dem bale national. ci biir Grand Yoff leen jóge wër àdduna. d'accord. d'accord mu nek euh, kon leçon bo xamanteni man mën nañ ko jëlee ci Serigne Dial le grand danseur vraiment euh, ñu koy gis à travers ci internet bi à travers ci télévision yi. Mhm. sa équipe bi anañu japonais yi anañu. wa ñom nak ñi ngi wajal ñi ngi waajal ah. mois de bi inshallah, ñepp di len ñew wa Japon dinañ ñëw. Mhm. wa Suède len ñew wa Italie len and ak Sanew Mbaye ñew waa Finlande dinañ ànd ak Ablaye Ndiaye ñëw. Mhm. waa Espagne dinañ ànd ak Modou Ndiaye ñëw. Mhm. li ci nekk yépp dafa bari ñu wax mënuñu wax lépp mais lu ñuy gën a dem. Mhm. dinañ gën a communiquer. dinañ gën a joxe information. waaw. di yaatal lépp ndax di woo di ci woo danseurs yëpp di ci woo sunu rakk yi. sunu mag yi. ak képp koo xam ne nga artiste nga nekk Grand Yoff. nekk Sénégal di sunu wëllëre. yaa ngi ci biir. d'accord. Euh, jërëjëf Serigne am mbégte contentement rek donc euh, comme ni El Maestro. Mhm. moom tamit xam naa dañ koy jégal kàddu gi mu ñëw wax tamit ci ki nga xamante ne mooy xaritam doomu ndeyam Serigne Dial. ndaxte moom tamit euh, yàgg ngeen ànd. mu nekk danseur nekk batteur aussi. je pense que ni Serigne ndax xam naa nag da nga ma expliquer ah. li muy def nii parce que li suma juumul mooy bala. waaw lii mooy balafon. waaw li mooy balafon. waaw te nee nañ aar dafay wax. aar day wax de. waaw moom ah. li muy def nii. loo si mën a jàngatal. te ni nga koy gisee nii kii danseur bu mag la ah. international. <laughs> mais est kii mën a danse. Eh, kii daa eh. mel ni yaa gën oyof de. bu jógoon wala danse bi laajul ay poids <laughs> wala. déedéet. kii léegi léegi léegi nii nga nga gis lu garaaw. ah waaw. mais ñu lii tuuti rek. <laughs> waa sëriñ maa ngi lay siyaar waay ngi nuyu waa Grand Yoff TV. ñu lay fay bu baax. lii mooy balafoo. Mhm. lii boo gisee vingt-deux lay nekk mhm. waaw bant bu nekk ak soom mhm. bu ci nekk ak soom mhm. bu ci nekk ak bokkul ak soom ndax balafon nag dañuy wax naan balafon yëfu jinne la xam nga booy xool histoire u Epepa Mandeng waaw histoire u Mandeng bëri li la ñu doon jiinee waaw loolu tax mu am sens te bant bu ci nekk day wax ndeysaan day tagg say maam. ndeysaan day wax say culture. Mhm. day ñaax buur yi pour bu ñuy xeexee. Mhm. macha allah moo tax yëfu jinne la. dëgg la. moo tax dafa garaaw. loo ñuy wax si Serigne Diall. mu nekk sa doomu ndey. Serigne dama naan du artiste Sénégal rek. Mhm. Serigne artiste international la. parce que nit ku nekk da ngay ñaan yàlla. jaar ballet national. di footballeur bu nekk ñi ngi ñaan yàlla pour nga jaar équipe nationale. kon sëriñ fam mhm. fa téere yi yegg mhm. sëriñ yegg na fa mhm. mu commencé nag ci Oscar des vacances ndeysaan dem ni ku gëm boppam nag ndeysaan nit ku am cër ci nit nag nit ku mën lool li muy def nag mën a fecc lool macha allah xam bu baax li muy def xam fa muy jàngale ba yàlla def mu ne ci groupe yi fii am groupe bu boppam waaye nag ni ku nekk da ngay ñaan yàlla dem ballet national du Sénégal. incha allah macha def nag mu nekk. Mhm. artiste su ballet national du Sénégal. macha allah mu xam ko fépp nag. macha allah mu dem fépp nag. Mhm. waaw. Mhm. dem fépp nag. macha allah nekk artiste bu rëy. mën li def nag. macha allah ñuy waajal nag. li ñu daan def chaque année. année bi nag day gën a yaatu. Sénégal Dakar tour août mois d'août. nu mu ko waxee waa Suède dina ñëw. incha yi dina ñëw. man mii dinaa ñëw ak italien yi. incha allah ñu ngi waajal tam benn festival bu rëy mois de mai. mois de mai à Sweden. à Sweden. loolu nag tax ñu gën a yokk def émission bi. incha waaw wax leen kuy Serigne Dia. jaajëf Serigne c'est le di. <laughs> ni ñu koy waxee si italiano. internationale. international waaw. <laughs> d'accord merci. molto bravo. merci. grazie Serigne. merci doom day. jaajëf <laughs> kontaan ci voilà kooku euh, kooku mooy Sanew Mbaye kookoy Sanew Mbaye kooku moom sama xarit la sama uh-huh. grand frère la sama maestro la mm-hmm. moom sans façon mm-hmm. waaw moom daf ma bëgg rek te yàlla tax macha allah waaw moom mënu wax si moom mm-hmm. dama koy bàyyi yàlla yàlla mi am fayam yàlla na ko sunu borom fay dëgg la macha allah macha allah Serigne donc euh, dafa mel ni ñu ngi waaj a jeexal émission bi euh, Malick suñu ko mënoon a am rek Euh, Malick waaw waaw. Mhm. Malick moom day ñëw léegi. Mhm. moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy manager Africa Tilibo. waaw mooy président bi. Mhm. mais balaa ñoo jeexal foog mu am ñoo xamante ni foog ma gërëm leen. ndax ñoom samay mag yu baax lañ samay maestro leen. ñoom ñoo ñu yar fii ci xar yàlla bi jàngal ñu tette ñu. waaw ku ci mel ni waa Davison booy xam nga ñoom André Dramé Ndiogu Mbaye. Papa Demba Gaspard. maa ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu maestro Albouri. Albouri. ah. Mhm. di gërëm waa Riche Boy foofu nga xam ne fa lépp. xewee foofu la lépp doore Riche Boy. waaw mhm. Omar Dione. Mhm. Ibou Camara. ah. Ablaye Ndiaye. Modou Ndiaye ñooñu samay seex ñooñu ñoo defandoo ñëpp. dëgg ah, ay ñoom Aliou. Ah, di gërëm waa kër ñoom Omar fa leen daan yandu fa leen daan defee lépp. Ah, di nuyu waa kër ñoom Khalifa. di imam. imam waaw di ko wax moom mi ngi mi ngi def liggéey bu am solo ci Grand Yoff incha ndax moom ñu mel ni moom dañ ko soxla ñu mel ni moom dañ ko soxla ci Grand Yoff bi ndax ñoom mhm. tooguñu seen kër rek jàpp seen ñàmbur ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi def mhm. waaw di gërëm sama famille ah di mhm. gërëm sama yaay di gërëm samay rak di gërëm ah sama nijaay ah mention spéciale aussi waa Sweden surtout Kiruna bi ma nekk ñuy waajal tamit ah xale yi festival bi foofu ah ci mois de mai bi. ni ko sama waa ji waxee moom mu ngi koy waajal day ñëw. waa Sweden yëpp di ko waaj. léegi dama leen di jox ah. manager Africa Tilibo muy Malick. Malick mu ñëw sànni si ay kàddoom. waaw Malick ñu ngi lay dalal. ñu ngi lay dalal Serigne moo nekk nii. macha allah le grand danseur. Uh-huh. lan nga ñu wax si Serigne tey. ah Serigne de sama rakk ju baax la. Uh-huh. waaw yàlla moo ñu boole. Uh-huh. ndeysaan mu mu jàpp ma comme mag. jàpp ma comme conseiller. lépp lu muy def mhm. dara du ma ci ëmb mhm. mbool ma ci léppam waaw mhm. ah, moo ko def lu di ko gërëm nag ah, di ko ñaanal yàlla ah, moo xam lu mu bëgg ci ci li muy yëngu ci aar bi fu mu bëgg a yegg rek suñu borom yeggale ko dëgg la wax ñu tuuti si groupe Africa Tilibo yaay manager bi ndax gérer xale yi yomb na wala yombul ah gérer nit si boppam moo yombut. Ah. <laughs> ay nit fu ñu booloo rek. loolu ah. def mu am ay ay rëq-rëq ay jafe-jafe. Mhm. waaye loolu yëpp da koy njiit moo yombul. Mhm. nit da ngay yaatal. Mhm. nga yaatal defal ñëpp ku ñëw rek nga xam noo ko jàppee ak noo nu mu mais yomb na yombul. waaw mais alhamdulilah. bu dee moom moom. jafewut. <laughs> d'accord la ñuy wax tuuti si en tant que manager groupe Fetchi ndax euh, maanaam da ngeen ko jàng da ngeen ko doon wala. daa am fu ngeen ko euh, jëlee. Euh, jamono bu ñu toll nii ci àdduna mën nañ ne aar. Euh, amatul amatul fenn fu mu féete science la rek. Mhm. lu ñuy jàng la. Mhm. ku ko jàng ku ko tarbiyo rek am ci dara. Mhm. waaw du question lu ñuy lu ñuy doon ak yooyu. weesu na foofu léegi daal. science la lu ñuy jàng la boo ko jàngee rek. dang koy tari ku jang mu moko di ko tari lo jang tari ko ah en tout cas sa élève bi mom machallah machallah <laughs> élève bi machallah <laughs> lo ci wax lo ci wax rek am am lo ci dessal lo ci wax am lo ci moy serigne dial ki moy serigne dial machallah diko ñaanal rek mhm. euh,

projet yi waaw waaw ñu ngi si projet yi mooy mhm. comme comme fi mu ne nii comme mhm. tey waaw <laughs> maanaam li ñu gën a mhm. li gënoon nekk suñu tànk tey tey tey fii Sénégal mooy def promo dakaar Sénégal Tour waaw xool lieu yi xool maître danseurs yi ñu war a jël ñu war a ñëw jàngale pendant stage xool liggéey yi ñu war a dem ak dem ndax lépp dañ ko bëgg programmer mhm. lépp professionnel nga xam ne ñoom dinañ ñëw ci jàmm mhm. dal ci jàmm enjoy Sénégal ci jàmm delluwaat ci jàmm mhm. dund teraanga Sénégal bi ñuy wax loolu benn la ci projet yi ñaar ñi ngi waajal album ba nga xamante nii maanaam bëgguñu ko bëgguñu ko sax wax waaye ñi ngi ci kawam liggéey ñi ngi ci liggéey bi ci yi ci biir yi ci biir li ne ci biir dafa bari waaw ah, ñi ngeeg suñuy rakk tamit xool ni leen yi gën a encadré ba ñu gën a stable. Mhm. waaw continuer liggéey bi. d' accord accord loolu mooy projet yi xanaa rek euh, ñu jox la dernier kàddu gi rek nga remercier ak euh, gërëm. waaw maa ngi gërëm waa Grand Yoff yëpp. Mhm. waaw ndax man gis naa niñ ma def. waaw. Mhm. man Grand Yoff lañ ma njëkk a jàppale balaa waa Sénégal di ma xam. waaw après Grand Yoff mu ñëw senegal Sénégal moo ma yóbbu nag. fépp fu ma dem ci àdduna moo tax fépp fu ma dem dama koy remercier sama gaay yi ku ci mel ni ñoom Abdou Sène xam nga ñoom Serigne Fall mention spéciale à Modou Ndiaye Ablaye Ndiaye ñi nga xamante ni ñoom defandoon nañ lu ne ñu bokkoon benn lal bu ñuy tëdd ba suñu borom dogal tey gis nga waaw ku ci ne fa nga ne waaw mention spéciale à maestro abdu Sène kenn du moom waaw ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm waa Grand Yoff yëpp ku lim nag da ngay juum mais maa ngi maa ngi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ah di mm-hmm. gërëm sama mag ju baax yi Ndiogu Mbaye Ndama nga xam ne ba mu ñëwee ba léegi ñooy ah, nekk def live bi waaw <laughs> ah di bëggee aada nga xam ne place am lañ koy defee fii ci yoof bi te damaa bëgg nag bu leen fiy gëj da leen ñëw fii ci place bi ah ñu place bi tuddati sax mm-hmm. Moussa Chateau Moussa Chateau waaw Moussa Chateau da leen ñëw fii dalal nañu macha allah ah. meruñu kontaan nañ kontaan nañ yéen gis nga waaw ah, macha allah maa ngi kontaan tamit ci sa équipe bi Grand Yoff TV di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay ah di bëggee sama grand frère bi sama maestro Sanew Mbaye moom waaw wax na fi leçon waaw macha allah kon euh, Serigne kon mu ngi noonu euh, amoon mbégte rek dalalaat la parce que télé bi moom sa télé la vraiment di wax gars yi tamit comme ni ko Serigne waxee muy nag euh, mois d'août Sénégal yëpp préparé ko Dakar yëpp préparé ko mu Sénégal Dakar Tour moom moo koy amal fii Grand Yoff waaye tamit di si oo ñëpp ay mbokk artistes am yu Grand Yoff comme ni ñu ko jàppale woon daaw ñëpp ñëw jàppale ko xen ji wax na tamit ay projet am ay album donc aar bi nag dafa métti euh, yenn saa yi da ngay gis sax ay gestes yoo xamante ni da yéem mais lépp dañ koy jàng mu nekk loo xamante ni euh, gis ngeen manager am wax na ko donc yombul mais xanaa di ko ñaanal di la ñaanal rek yàlla jàppale la lépp li nga bëgg yàlla defal la ko am mbégte bu baax a baax a baax tamit di jaajëfal sama gaay ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw <laughs> waaw Mor moor mbay ak Sidia Sané ak El waaye du ma fàtte sama grand Omar Dione moom mi coordonné lépp macha allah un grand respect à toi grand Omar Dione chers téléspectateurs Grand Yoff mu ngi noonu lépp la aar bi la fu mu mënta nekk bépp domaine jërë ngeen jëf.